dañu ñëwoon tey Fatick ñun délégation bureau exécutif national pour assister fekkee assemblée générale bi nga xamante ni euh, bureau Fatick moo ko convoqué woon moom ak militants yi pour ñu waxtaanee suñu syndicat mettre en place également renouveler bureau bi nga xamante ni moo fi nekkoon ñu génn ci assemblée général bi ak ay ñaxtu ñaxtu yooyu mën nañ cee tënk juróom benn bi njëkk mooy jàngalekatu Fatick yi dañuy wax ni kooru décisionnaire nañ ko fi jëlee jël décisionnaire yi dugal leen ci kooru fonctionnaire yi lu tax dañu jàpp ni projet de décret bi nga xamante ni ñoom gis nañ ko jàng ko càmbar ko du saafara jafe-jafe yi nga xamante ni moom la décisionnaire yi am ñaareelu revendication mooy fii au niveau de Fatick jàngalekat yi dañu gis ni il faut ñu recruter ay jàngalekat yu xarañ ba pare doy lu tax parce que boo duggee tey ci école yi li ngay gis mooy ay école yoo xam ni am na ay classe yu ñu tëj lu tax ñu tëj ko mooy jàngalekat amul am na ay école yoo xam ne boo fa duggee da ngay gis classe yoo xam ni dafa fees dell macha allah ak ay ndongo li ko indi mooy jàngalekat yu doyul boo demee ci ay école kama yu mel ni ay lycée ak ay collège da ngay gis ni classe yi li ñu waroon a jàng sax dañ ko wàññi professeurs yi également ñu yokkal ay heures loolu yëpp moo tax syndicat bi jàpp ni jot na gouvernement Sénégal recruté waat lu toll ci junni jàngalekat yu bees loolu du ci ay chiffres loolu ministère de l'éducation nationale xam na ni am na lu ëpp juróom-ñaari junni du mooy 7000 jàngalekat yoo xam ni système bi war na ko recruter ñu saafara déficitu jàngalekat bi nga xam ne moo am. beneen bi am également mooy problème mu euh, retraite yi pension retraite gis nañu ni jàngalekat yi. bu ñu nekkee en activité dund gi dafa tar ci ñoom bu ñu retraité bari na ñoo xamante ne li ñu fayeeku dafa yées ñaar fukki junni te Sénégal ku nekk xam na ni dund gi dafa metti moo tax ñun suñu organisation syndicale dafa jàpp ni euh, gouvernement bi dafa war def ay effort pour que pension retraite jàngalekat yi nga xam ni fonctionnaire lañu ak décisionnaire lañu ñu yokk ko yokk bu am solo pour ñun tamit ci biir retraite bi ñu mën. Euh, gis seen bopp bu baax a baax ci li nga xamante ni moom la moom moom moom mooy mooy mooy comme mooy jënd beeg jaay bi loolu également soxal nañu. beneen également revendication boo xam ni génne nañ ko fi mooy âge de retraite soixante cinq ans bi ñu bëgg ñu ñu dugalal ñu ko jàngalekat yi ku ci nekk xam na ni ci juróom-benn fukki at la ñuy retraité dañoo bëgg ñu yóbbu ci juróom-benn fukk ak ak juróom juróomi nag ku neex lay doon ku neexul doo jël loolu li muy permettre mooy jàngalekat yi nga xam ni bi ñu nekkee ci système bi yàggul defuñu fi lu dul ñaar fukki at wala ñaar fukki at ak juróom ñu mën a liggéey au moins lu tool ci fanweeri at ba nga xamante ni seen pension retraite dina gën a baax. dina baax également pour système bi parce que képp gis nañu ni jàngalekat yi également bu ñu am 60 60 ans mu juróom-benn fukki at ci la am expérience ci la seen xam-xam jàngale di gën di màcc. donc bu leen système bi libéré ci aat boobu dafa mel ni pertement lay doon ñu ci bari gis nga ni du ñu sax toog bu ñu amee retraité dañuy dem dugg ci leneen. am na loo xam ne léegi dama ko fàtte ci nasaraan mais ci la bokk mooy lenteur administrative yi lenteur administrative yi mooy acte yi nga xamante ni jàngalekat yi ñu ngi koy wut au niveau du ministère de la fonction publique mu tudd acte de reclassement ak acte de validation dañu gis ni. ni koy traité dafa yéex jàngalekat yi ñu bëgg lenteur yooyu mu dàkk gis nañu également décision de nomination au poste de responsabilité yi muy direction d'école muy également secrétaire généraux yi muy muy proviseurs yi muy censeurs yi loolu également dañ koy war wut ay pexe parce que dañuy gañe seen post toog ñaari at ñett at seen acte du génn ça veut que ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne amul insidence financière loolu mooy ñaxtu yi nga xamante ni militant yu Fatick moom la ñu tënk ci assemblée générale bi nga xam ni moom lañ doon def léegi ñuy wax ni militant Fatick yi am na ñaari sant sas yu ñu def benn bi mooy ñu déposé déposer préavis de grève préavis de grève boobu nag dañoo am ndaje talaata ndakaaru bu ñu génnee ci ndaje moom incha allah dañoo ñu ji préavis bi au niveau du ministère de la fonction publique ñaareelu recommandation bi ñu def mooy nañu daje ñu jàngalekat yi ci cadre boole suñu bopp ndax mbooloo mooy doole su fekkente ni soxla jàngalekat yi rek moo ñu ñor jàngalekatu Fatick yi nee nañu nañu dajaloo ci cadre di waxandoo di jëfandoo ba nga xamante ni li mu fi tudd lépp ci jàngoro ñu mën koo saafara ah sans délai voilà loolu la ñu amoon def ci déclaration